benn dernier point euh, muy euh, friction man nañ ko tuddee noonu division yi nga xam ne am na au sein de l'opposition bi yoon la ñu gis une opposition dans l'opposition maanaam opposition yoo xam ne seen démarche bokkul combat yi benn la mais démarche yi bokkul attitude yi bokkul comportement yi bokkul euh, loolu jàpp nga ne doole la ci opposition bi wala lu leen néewal doole dooleel Macky Sall la déedéet c'est que nag opposition il faut ñu reconnaître lenn aussi mm-hmm. opposition dans l'opposition amul opposition parfois day égoïste mhm. day dem ba pire que le pouvoir lu Macky Sall lan lañ bañ a Macky Sall wax lu dul dëgg opposition yi sax day wax lu dul dëgg mhm. yaa ngi dégg non du ma bokk ci élection tey bu subaa ngeen damay bokk bu ginnaaw suba ngeen non ku génn damay génn ñu jàpp ma doo génn opposition parfois dañu am dañuy égoïste seen biir wuyu ma bien sûr am na loo xam ne ñeneen def ko ñeneen def ko dama jël misaal yooyu rek ok opposition parfois bu xëccoo position jotee dañuy wane comportement pir que Macky Sall en détriment du peuple du choix du peuple su boobaa dañuy mérité d'être opposé leen très fermement pire que ni ñuy opposé Macky Sall parce que ce n'est la l'appellation opposition moo am solo nga xam ne ku ci bokk yaa baax ku bokkul fële baaxul loolu du dëgg du yoon dafa am ay règle rek normal mhm. mooy intérêt du peuple ku ci nekk soo dee pouvoir baax nga soo dee opposition baax nga ku ci nekkul boo dee pouvoir baaxu boo dee opposition baaxu su opposition wanee ay comportement pire que le pouvoir soo baa il faut que ñu dal ci kaw opposition bi dal ci seen kaw ñu leen yéen yéen pire le pouvoir pour que ñu revenir en ordre loolu koo gisee opposition ci opposition mais yow yaa gëmul dara du opposition la ñuy xeexal xeexuñu pour l' opposition parce que opposition composée par des individus politiques mhm. ña fa bonoon démb tey ñoo ñëw baax je prends le maire de Dakar lan la fi waxul ci Moussa Diop Moussa Diop lan la jëy waxul ci maire de ki kii sàcc la kii jàngul kii dafa bon bañ dem tribunal lan lañ mujj kii nekk tête de liste Podor nekk tête de liste mhm. lan moo ci njëriñ peuple bi parce que kon parce que parce que ils s'en foutent loolu il mérite d' être critiqué d' être dénoncé mais su ko sëñ Modou Bousso waxee non est-ce que sax Macky Sall newal ci ginnaaw non est-ce que sax kii deful opposition daal opposition daal opposition xamuñu lan mooy opposition peuple moo am solo mais du turu opposition du turu pouvoir opposition day fexe ba toujours di joxe jàmbatu askan bi te joxe bon comportement di joxe bon bon itinéraire voilà une bonne opposition tant que ñu ngi koy def dañ koy dañ koy rafetlu mais su fekkee ñoom dañuy bëgg a nekk en démagogie ci seen biir ku ci gën bëgg pouvoir sa morom

fi ma nekk laa nekk lu ma gëm laay wax noppi naa ci. yow fan nga féetee ci opposition bi kan ngay jàppale ci élection législative yi. joxeegu ma benn moo dootu benn nag maa ngi toog di xoole balaa boobu daal defe naa ne bi ma gënoon jubu daal mooy ma defoon ci local yi mooy tous sauf Macky ku gëm kenn te defe ne moo baax woteel ko mais bu mu doon Macky wax dalaa waxoon ci ci local yi soo watuur je vais vers cela mais pourquoi aussi sëñ bi lu tax loolu lu tax taxawaay boobu war nga bokk ci xeex bi nag. pour mais xeex bi li ma ci def opposition da ko cee def. pour am benn normalement liste yi war nga xool ban moo ci gën a. qualitatif man sama liste laa yoroon ma doo ci bokk. mais nga xool gën a qualitatif. non non pour ñu am benn représentation bi nga xam ne dina dina dina a baax. ci assemblée nationale doxuma ci loolu doxuma ci calcul politique boobu. non parce que bii mooy bu mag bi xaaral ma dem fa ndax ñu sedd ma doxuma ci sedd su doon loolu ma dem ci Macky Sall mu sédd ma je ne fonctionne pas comprendre nga man bu ma yàlla seddee ba maa ngi sant war naa am ngorog toujours may wax lu ma gëm lu dëgg xam nga esprit boobu mooy non yow moom dem boo demoon diw sédd la boo demoon diw investir la tant pis su ma doon dem ma dem ci Macky Sall mu sédd ma boobu yàgg na lu dëgg te ñoom ñu ci ëpp bi leen Macky Sall séddu lañ leen dégg man ba ma Macky Sall yi dégg lañ ba ma Macky Sall ma nee sédd parce que je connais Macky Sall étant président national qui a des soucis avec Macky avec Abdoulaye mmh. ma di ko jàppale ba mu jàll mais man la comprendre nga. su ma bëggoon kay ma dem mu sédd ma ci boobu. mais la ma doon bañ ci Macky Sall laay bañ ci kii que ce soit. loolu dëgg du ci ànd doxuma ci ànd ak diw pour mu sédd ma ku ma bëgg a def defe ne damay wax la neex pour nga sédd ma ma ni hey téyel ok donc li ma leen di laaj daal mooy nañ génne esprit partage boobu. bii mooy bu mag bi ku nekkul fi nekkoo ci dëgg ku nekk fedoo dara seen dictature boobu moo tax ñu tasaaroo kii jaanni ki jaanni boo xo opposition bi dañuy saaga ci seen biir sax sax fàtte nañ pouvoir bi. voilà su Macky Sall la mën a amal politique nii xaw a xaw a yéeme ni waat yëngatuwaat nii tuuti parce que parce que division opposition bi tax mais su fekkoon opposition bi dañu soumis toujours même truc kenn xeelu sa wàll man kenn mësuma dégg ma ne damay laaj dara ci opposition absolument rien et pourtant dans tous les combats maa ci te fi mu gën a difficile mooy fi mu dëkk mooy tuuba te maa ci te toujours ñu ngi may jéem wut ku ma tontu ñu may jéem a wut ñu ngi jéem a neex a neex lay imam faux imam ñu ngi jéem a wut wut ay nit samay mbokki bopp ñu may saaga ñu ak sans compter pexe te yooyu yëpp dama def pour le peuple ko def pour opposer Macky Sall en mais nag su ci euh, dictature bi Macky Sall yor mag si opposition bi dama di sànni ci àll ba dem sama yoon continuer la ma nekkoon ci Ablaye Wade ba ci Macky continuer rek personnalité d'opinion chantinelle ak ma position religieuse bi ma jàng doon ko